ak Théodore Semedo taw bi lim def vraiment ci suñu gox bi fii ci quartier Madiabel ci le point de Amina ci quartier yi nga xam ne mooy quartier Baye Niass quartier Sine Mansour quartier Abdou Aziz quartier Diokou Alaji Paté unité 5 ak ndox mi dafa déborde bu ci kër yi rawatina nag ci désor Amina bi nga xam ne moom presque moo gën a point bi gën a suufe ndox yi jógee jaxaay yëpp dañuy jaar ci booru pharmacie Baye Niass ñëw ci point Amina bi mooy ci déversoir bi déversoir bi débordé ci kër jàmbur yi actuellement beaucoup de sont inondés ah population bi nag jaaxle nañ trop en tout cas ñu ngi lancé un cri de cœur aux en tout cas qui sont au niveau de la zone pour ñu mun ñu jàppale ci ndox mi ndax pompage bi efficace parce que Amina bi benn téo rek mooy yóbbu ndox mi te ñu ngi branché ay ñeenti téo yi fi dugg ñeenti téo yu mag donc benn téo nag mënul drainer lu ñeenti téo du indi ak naturellement ndox mi jógee bàyyi ñes donc problème moo fi am donc ñu a renforcer ndox mi bëri bëri bëri suñ ko taalee pendant vingt quatre heures ndox mi dee wàcc ñu ngi xaar nag en tout cas pour autorités yi mën a réagir ñu ngi nii tiit ñu bëri ñu ngi nii di seen bagage yi en tout cas taal nañ loxo état bi ñu jàppale ñu Kër Sud Kër Sud mooy inondation yi dëgg fa la nekk parce que moo gën a suufee yëpp moo gën a suufee jàmbat gi benn lay tamit ci Kër Massar